loolu ñaar itam firi ni tey firi lu ñu ca des barkeelu ca waaye il faut mu am ku ko sàkku ñooñu ñëpp moo leen firil sëriñ Babacar Si radiallahu anhu mu ngi nettali ni piree mu mujj mag ñu bari fi lañu des delluwuñu ci mag ñi ñëwoon ndax moom pireem ñépp dañ daan jóge fu nekk ñii saalum ñii gànjoor ñii kajoor ñii waalo ñii bawal fu boroom xam-xam nekk rek te bëgg a jëriñu ci pireem ma daa ñëw dañuy wàcc ci nekk fi tabaarakallaahu mu ni mag ñu bari ci piri mooma la ñu des eh, mu dugg ci biir woo ko lu ko su ma yëgoon dañu commencé prime yi ñu ko gis nga nit ñaa ngi dee naweñ ndax leer gi dafa ëpp boobu prix nag bokk nag suñu bos <laughs> waaye nag ñu rey waaye ñu bari ndeysaan ñibbiwuñu itam ki Serigne Babacar tànnoon muy pirilu nit ñi di Serigne Cheybatu Fall radiallahu anhu ca xam-xam moom bu rëy baag déggam gu yaatu ga moom la tànnoon ni ñi bëgg ku leen firil alquran dañuy dem ca moom sëriñ Cheybatu di firi pireem mi ma mujj fekke alxaaj Abdul la doon firi ca zawiya ba ca Dakar fekk at moomu sëñ Babacar Si ma nga nawet Dakar yaay àndoon ak moom itam si alxaaj Abdul Aziz radiallahu anhu profité nag ca occasion ba mu firi leen waaw prix bi sax jotul yegg waaye nag sori woon na ah moom itam ñamu firil ca ñooñu rek li taataan eh, ñu sàkkuma ak oustaz Ousseynou Diène ne ko yàlla dolli leer ci sëñ Mansour Diouf si Mansour Diouf xajjam wadd bàyyi Cheikh Wadd mi toog firil na ko ndax fa nekkoon di jàng gannaaw gi tam sëriñ Cheikh na ko waaye mu nekkoon nag suñu sëriñ duma wax ni suñu magum daara ndax suñu magum daara la woon waaye moo ñu daan leeral lu bari te nekkoon ku tabe ci xam-xam te woyof lool këram lañu ñu defoon daara ñu ñi ñëpp man oustaz ñu jéen ñu ñëpp kebaaka kale mbay ñun ñëpp këram lañ daan daje moo ni leeralal yi ñu déggul nekk mag mu baax a baax a baax woyof lool nekk nekk mutawaadia eh, moo ñu jëkk ko fii fii ci jumaa ji waaye itam mel na ci wàll waaw leer nit yàlla rek jumaa ji dafa xaw diis ma ni ko bu ñu ko mënoon sàkku beneen place bu dul biir jumaa ji dégg génn bi ak dugg bi te marta ba nitu yàlla dafa ñàng te itam laatu saabix ñu mu fi jóge itam ñu waxtaan ak alxaaji Useyni Jéen ah, kër gi du mën a ñàkk koo xam ne nag bu kooree muy nëxalal nit ñi waaye mu nangu ko di ko def du ko def def bu rafet ku déglu kasetam yi xam ni tabaarakallah ah yàlla itam def ko noonu la doon liggéey rek wàcce na jeex na point surtout du lu ñun ñëpp dañ koy fekki te itam lu may wax ni koo xam ne yaa mag sa wëy jur boo demee it yàqul am na bu ñu seetee li nga dund sa waajur dund ko ah, ah bi mu fi jógee itam ñu nattante suñu batt xam ne it bi ku ko miin dana ci baax ndax soo ko miinul it boo fi firee mën na la indil njuumte te juum nag baaxul moo tax ñu fekk sëriñ Cheikh mi muy firi ci mbuur am na jàkk ji mu doon firi waaye nu xëcc ko rek mu may nu ay bés te dem seet si tam nu mu leen di def lii nag lu am am solo du waxtaanu koor rek mais waxtaanu xam-xam la ngeen profité ci yéen ñuy déglu surtout yéen ñi nekk ci daara ji ngeen gën a góor xet yéene fi nekk yéene fi nekk ñu def ko itam ci ndigalu ki nga xam ni mooy yilif xadara bi di sëñ Mansour si ndax ku ne xam na ni mooy boroom daara ji boroom daara ji ndax sëriñ Babacar si bi nu jógee ci daara alquran daf nu booleek sëñ Cheikh ak sëñ Mansour ne xanaa ngay dem ca ñoom ñu di la nëxalal li nu for yëpp boobu fii nu toog noo doon daara ji ñaari néegi baraat nekk fi ak bitik nosu ko moom ko ñu luye ko nag sëñ kër Si luye ko ñu nekk ci benn néeg bi sëriñ Cheikh nekk ci benn bi ci des nun taalibe yépp nu nekk ci fees ko dell sax xëya mu tëralal nu jafewul a gis wax dëgg yàlla nekkoon na itam saas bu bëgg xam-xam yàlla yi may ko ca nag may ko ca fatxu la amoon ñu xëy dem ci moom bu ñu fa jógee dem sëñ Mansour ñu xëy ba naajee ubbi ñu ci sëñ Mansour suñ fa jógee ñëw ci moom eh, loolu mooy doon daara ji ngeen bàyyi ko xel nag am na nag am na xam ni kenn du leen ko defal dexal sax waaye sàqami woon na nag yaa koy defal sa bopp ngeen profité ci occasion la occasion nag fursa la te fursa nag tunteuse da nga ciy profité ngeen di for ngeen di ko yëraat ngeen demee seeni néeg bu leen dem rek tëdd ngeen demee xoolaat leen ko lu ngeen ci xamul ngeen dem ci seen magum daara mu leen gën a jege ni ko man de ay bii dama ko déggul walla baat mi piri mi dama ko xamul mu leeral leen ko ngeen booleeg li ngeen xam waaw ngeen booleeg li ngeen xam ngeen gërgóorlu xam nit a koy may boppam waaw te li koy may rek mooy jàngam bu leen ci kenn nax diw dafa am fatxo junni nit ñoo gis kenn ci am fatxo ñi see des ñëpp dañoo jàng rek jàng ku jàng xam lu sa xel naqari naqari boo yàggee ci daara ji rek am fato lu sa xel neex neex booy jàngul doo xam tus kon xam-xam jàngul dong nga koy maye te ngeen jàng nag ndax kat ku jàngatul ngir yàlla it jàngi ngir nit ñi jàngi ngir yàlla nag moo gën ndax alalu yàlla la xam-xam alalu yàlla la shakawtu ila wakiin su a fahmi fa arshadani ila tarki lmaasi wa qaal alam bi ann alilma nuurun wa nuuru llahi li asi ngeen di ko booleeg mu war a àndal ci sell teeg fonk seen bopp taalibe day fonk bopp xuququ tahaara su ko defee rek ngeen gën a jàppante gën a góorgóorlu ngeen fi jógee itam rek bi leen ko fi yemale ba sa ëllëgati déedéet da ngay nag dem xool yi nga jàng lay si déggul su ëllëgee nga ñëw ni ah man de waay sa cheikh ay sangam ni ko déggul la magum doomu ndar ma waxoon Maodo ko li nga firi démb de waaye élargement yi dama ko déggul <laughs> commencé di commencé wax mu ne ko xanaa tafsirul jalaale yi li nga yore loolu la ko Maodo wax mu ne ko waaw mu ne ko moo juum demal ca saabi alal jalaale yi kookaa tegu ca yoon dafa tafaasiir yi Maodo gënoon a taamu la bokk sabi alal jalalayn waaw ah, waaye nag boobu itam xam-xam ni mu tàllaloo tàllaloowu ko léegi tàllaloo na ba ñii sharx alquran comme ndox ci ñoom si ruux yi kenn xamul nu mu tollu léegi man rek maa ngi lu ëpp fanweer ak juróom ci ay sharxa yu bokkul fanweeri sharxa ak juróom yu alquran am na si yoo xam ne sax ay nusax laa ci am amu ci rek benn sharxa waaye ay sharxa laa ci am pour wan leen ne xam-xam tàll na lool léegi loo gis day yokk dëgg la ñu ngi naan téere yu xonq yeeg moo fi nekk téere dëgg jàng leen téere yu wax yi loolu waxit rek la woon te dégg waxi nit yàlla dafa baax waxuñu leen bu liir téere yu weex yi déedéet boo ko liirul doo xam dara ndax ci la xam-xam nekk léegi fa ngeen liir dafa wane wan rek téere yu xonq yi kat la ca nekk wér na man ci lay sukkandiku waxi mag la waaw waxi mag la su ko defee nag liir leen surox yëpp ba noppi nag def muqaarana muqaarana den dalee xool ba xam waaye boo ci gisee rek téyel waaw ndax amul benn xam bu woyof dañuy wuute rek ci ay xalaat nag loolu nag ixtilaaful ulama yi rahmatun waaw ixtilaaful ulama yi rahmatun waaw wa salatu اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وعليكم السلام وانشر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين بديع السماوات والارض واذا قضى امرا لن يمون فانما يقول له دكوي وخ كن فيكون لا nga xamni mom la namm ida xadaa bu nammee ngay firee amran mbir fa innama yaqulu lahu da koy wax kun nekkal rek fa yakunu kun kaaf gi mu ngi jóge ci kaynunatullahi nun gi jóge ci nuurihi yi nga xam ni mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa bu ñu dajee rek lenn nekk mooy kalimatullahi tamma dinañ ko def jamu ndax kun yi waaye nag yàlla ba mu ne kun nekk fay kun kuni de ba mu ne kun rek la lépp lu war a nekk yëg ordre bopp placé ci contexte ba nga ko nekkee bu jotee nga nekk ñu ni kun ji bi mu koy wax ñan la ko waxal est-ce que li existé gul la wax kun wala li existé ba pare bu dee li existé ba pare lu mu koy waxee kun existé na ba pare bu li existé gul li existé gul nan la ñuy waxee ak moom foofu la caaw li nekke ñu ni li existé ci wujud la ñëwagul mais kaynuuna am na ko kaynuunatul adami la nekk yàlla ni muy waxeek li nekk ci wujud noonu lay nekkeek waxeek la nekk ca adam ak su suwarul barisa la mbir yépp nekke am ay suwar ba nga xamee ni nekk gu ñu la ca war a nekk nag bu ko nee kun la ca war a jóge ci adam ñëw ci wujud dina dégg ordre boobu dina génn ci adam ñëw ci wujud la ca war a sax ca adam ca kun ba day saxe ci adam kenn mënu koo jële ci adam indi ko ci wujud mais loola lu existé la ci yàlla yow la yaa xamul ndax li nekk ci adam existé na am déet wala déet mais moom al wujuduk al adam yépp existé na ci moom mooy kalimaatullahi taamaati ji yeneen bi di musloo mooy kaaf googu ak nuun gi yaa jaa ilal xaali bayna al kaafi wa nuuni fa bu ko waxee yëkkuunu loolu daal di nekk waxaala lazina laa yaalamuuna door a ñëw waxaala wax na allazina gaa yi nga xam ne laa yaalamuuna xamuñu ñu ni yahud yi la ñu ni déedéet nasaraan yi la ñu ni ceddoy arab yi la kon ku dul jullit rek yaa ngi bokk ci ladina laa yaalamuuna dañu ni law laa yukallimuna allahu tere woon yàlla wax ak ñun yellante law laa bu taxdiidi yàlla du bu imtinaa yi li leen teqale moo di ni lawlaa bu taxdiid fiil moo koy topp lawlaa boo gis fiil topp ko day ngéeju du xarfu imtina limtina bu fekkee bu imtina limtina wala li wujud la mubtada moo koy topp lawlaa bii danga koy firee xëllaa terewoon yukallimuna wax ak ñun allahu yàlla awalay tatiyanaa dikkal ñu aayatun benn kéemaan buy yëgle ni seydina muhammad yàlla moo ko yónni yàlla nee na kadalika nii ñu weddee ba pare di ngeeju yàlla wax ñoom xaalal la dina la waxoon ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon misla qawlihim dañoo waxoon wax ju deme ni ki seen wax ji tashabahat qulubuhum seeni xol dañoo niroo ci nifaax ak kufr yàlla nee na ñun nag xat bayyana al ayaati wallaay biral nañu aaya yi waaye nag li qawmin yuuxinuuna ñi am yaqiin ci ni man yàlla man may ki bind yónnee ñooy ñi nga xam ni dinañu xam aaya yi